ñun bi ñu ko yëgee li nga xamante ni moom la ñu yoon sant en tant que membre de euh, bi ñu bokk ci euh, opposition bi bokk ci aussi tamit ci groupe parlementaire bi nekk chef lycée Madické Niang nekk suñu mag président Abdoulaye Wade nekk suñu baay buñ ñagas-ñagas amee dañu war a sol suñu tànk dox ba jàmm amaat loolu moo waral bi moo ko xalaatee wax ji wax seeg euh, président de courant wax ci sëriñ Cheikh Bara Dolly sama mag ñu ànd dem seeti président Madické Niang waxtaan ak moom vraiment muy mu rafetlu ko trop xam ni euh, lii ñu def tey jii bettuñu si ñun euh, ndax lu mel nii rek lañ war a def taxawaay bi lañ war a am ba ñu fa jógee ñu dem si Omar saar wax ak moom ba ñu fi jógee ñu dem si xalif général de Mouride sëriñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fu loolu te wér suñu xel gën a dal. ndax sëriñ bi ni ñu ko waxee ak moom mu jox ñu heure ñu dem heure boobu ñooñu ñu gis ko waxtaan ak moom mu ñaanal ñu suñu xel dal na ci diggante boobu. li am solo rek seen relation lan wax ak seen taalibe ndax li ñu bokk muy sëriñ Touba ñoom ñaar kenn mënu koo xar te ñu koo séddoo te loolu moo ëpp doole lépp lu man doon ci àddina ndax bu dee nguur nguur day jeex bu dee alal alal day jeex lu mu mën di doon rek sëriñ Touba moo ko ëpp doole. te ku ne xam na ne président Abdoulaye taalibe si Ahmadu Bamba bu am ngërëm Sëñ Tuubaa président Madické Niang tamit noonu la kon ñaar ñooñu li leen liyee mooy sëñ bi te bi du jeex kon ki nga mooy Sëñ Tuubaa nag bu jara amee ci lu mel noonu ñun li ñu yoon def mooy dem seet Sëriñ Tuubaa mi fi nekk muy Sëriñ Muntaxa loolu ma ñu dem fa ba ñu ko waxee tamit wax dëgg yàlla déglu nañu dégg nañu wax nañu lam ñu wax tamit ñëw nañ wax ko ma Madické Niang tey waaw xam nga bi waxee kilifa moom doo taxaw ci média di wax mais daal en tout cas li mu wax dal na suñuy xel te bi ñu ko waxee président ma dikke sànq ni euh, bi ñu jógee si levée du corps bi ma nekk euh, de croix ak Serigne Cheikh demaat nañ fa rendre nañ ko compte li ñu jëlee ci Touba. président Abdoulaye Wade tamit woo na ma téléphone wax naa ak man wax naa ak Serigne Cheikh téléphone ak ku ñuy wax député Moustapha Diop. lim ñu wax dégg nañu ko àgg nañ ko aussi tamit euh, ma dikkee ndax loolu nga xamante ni tey mooy député bi dox seen diggante nga xamante ni tey bu ko delloowul rek day sàmm seen diggante relation bi Abdoulaye Wade bëgg ndax Abdoulaye Wade moo ko sàkku ni ko relation bi jeex. relation boobu nag li koy bañ a jeexal mooy li nga xamante ne mooy ndomb tànk bi député gi nga xam moom la am te Touba ak askan wi fal ko mu yaakaar loolu Ablaye Wade wax ko ni ko na téye loolu loolu ab ma dikke du ko delloo. léegi nag comme moom bëgg na nekk candidat te aussi parti bu mën doon mënut am ñaari candidat man na delloo groupe parlementaire bi mais teewul mu nekk ci disposition peuple bi man bokk gis-gis laa bokk damaa bokk ci seen allié bokk tamit ci li nga xamante ne mooy groupe bi. lépp loo xamante ne gis naa ne lii mooy defar groupe bi dinaa si wax sama këmtulaay kattan fii ngeen ma fekk dafa fekk ma wax ak président Wade ba pare ngeen doog a ñëw en tout cas suñu baay la suñu lépp la te liggéey na loo xamante ni li muy dundu jamono yi ñu toll mérité wu ko wax dëgg yàlla kon nag lépp loo xamante nii képp ko xamante ni man nga ñaan ba dëkk bi am jàmm président Abdoulaye Wade ak jàmm ak njabootam ndax ma dikk si njabootam la ndax ni ko nit ñuy bàyyee sax euh, mën naa du ko yëg du ko metti mais bu ko mais diggante ma dikk nii fi mu ko àgg ci méttiwaay musu fa àgg si comme ci ci ñenn ñu ko ma a bàyyi yëpp kon mooy wan que ni rek am na am na foo xamante ni ma dikk àgg na ko fa kon nag loolu vraiment maa ngi su ñaanal ma dikki ña di ko souhaité aussi tamit vraiment ku baax la ku dal la ku amul taalibe la ku gëm see Ahmadou Bamba la kuy déglu ndigal la ndigal leen ko jox na ko appliqué voilà loolu rek mooy si am solo. Ablaye Wade sakku na si ma dikkee pour mu bañ koo mu mu bañ a dagg bi. loolu xam nañ si ndax wax naa ak ñun si loolu kon relation boobu tamit ma dikki d' accord na ni accepté ne cent pour cent ni relation bi du ko dagg mais l'essence c'est que nag kon moom li ñu doon wuti am nañu ko am nañu ndam ndax relation bi du jeex groupe parlementaire bi nag bu ko neexee mën na ko delloo ndax oui mais dama ne bu ko neexee mën na ko delloo ndax bu fekkee da nga nekk candidat parti bi am candidat parti bi am candidat nga bëgg a ñëw jiituwaat seen groupe kooku tamit mun peut rek mënut a nekk mais député gi nga xamante ni askan ko fal kooku mën na koo rester voilà mais daal fii ba suba ba ginnaaw suba comme dëjeegun en tout cas li am solo rek mooy jàpp na ni daal euh, jàmm dana am seen diggante jàmm jooju moom la ñuy ñaan Sénégal yëpp ñu ñaan ñaan kilifa diin yëpp ñu dugal seen loxo aussi ndax mooy seen warugar. jàpp naa ni Touba moom lenn loo xamante ni dana ko séntu si lu ñaaw si diggante ma Niang ak Ablaye Wade warta mën a am kon ni mu taxawee nii ni la waa Sénégal gépp war a taxawee ndax Ablaye Wade ñëpp lu ko ji muy jàngu bi muy waati waa woon ñëpp tey kenn ku nekk tey waroon nga yëkkati sa kaddu jël sa tànk nga dem pour jàmm jaam ndax ma Madické ak Ablaye Wade kenn ku nekk ji nga ko ñooñu te yaakaar naa ñoom du ñu ko bàyyi aussi diggante boobu yàqu bàyyi gi amut Madické Niang bàyyi tuuti Ablaye Wade même lu coow lu coow lu bari bari bari teewul Ablaye Wade mi ngi jokkoo ak Madické voilà loolu rek moo si am solo Sénégal yi nag xam nga peut-être que média bi ñooy bind loo xamante ni Madické bàyyi na Madické mais fi may waxee Madické bàyyeegul. Madické bàyyeegul ba léegi nii moom c'est le reste de député Assemblée nationale pour le moment c'est le président groupe ba keroog maanaam alxames jot ñu jéem a xool nan la ñuy waxtaanee pour après bu fekkee day delloo député gi ndax moom tamit du xaar ñu koy laaj bu nee ba nga xamante ne xëy na fii ba suba euh, bon xam na ni day maintenir candidature am bon lay Wade du ko si wax lenn loo xamante ne aussi lum mu ko wax la moom aussi tamit dana delloo député gi si njëkk ak ci euh, dana delloo groupe bi ci njëkk ak tranga euh, reste député am nekk si disposition Abdoulaye Wade seq mu relation bi nga ko doon seq moom voilà loolu daal mooy li am solo l'essentiel bi daal ànd bi moom. Euh, day continuer ñi nga xam nag ñeneen ñi nga xam ñooy wër nag di yàq ak wax kooku xëy na seen intérêt la ndax am na ñu taxaw ñoo xamante ni bëgg nañ ma dikkee bàyyi ñu jël ñu jël li mu yore am na ñoo xamante ni buñ sañoon lu nekk ñu ngi koy wax pour ma dikke mais am solo rek mooy taaliba la te respecté na sëriñ bi teg na ko fenn la ñu sëriñ bi wax wax nañ ko ko duñu ko wax nag si ay média li ñu Abdoulaye Wade wax tamit wax nañ ko ko l'essentiel que ñu ngi ñaan jàmm ak xéwal seen diggante ba réew mi jëm foo xamante ni mooy fi mu gën ko